Euh, niveau bi mu toll. déedéet du ko dalal. Mhm. déedéet séentuwuma woon loolu. Mhm. déedéet ki ma waxal il y a trente minutes. Mhm. maa ngi woon bureau toog. ok mais dama ni ko pour man euh, procureur. day confirmer même condamnation bi. man sama gis-gis. loolu la woon jàppoon na egg fii kon tey. réer naa ci justice su Sénégal. parce que nag yaa ma waxal dëgg rek waxaluma la dëgg ak wax nga dëgg ak dangaa fen ak fenoo mhm. jarul deux cent millions jarul six mois jarul yitam mhm. di yàq éligibilité nit mhm. jaru ko daal parce que xam nga mënuñu aussi ne dañuy woote dialogue di waxtaan pour waxtaane réew mi ba pare di faire mal quelque part ba kenn ok am raison ni man maa lànk duma dem ca dialogue ba na je pense que réew mi nag dañ ko bu may wax nag ni sànq ni leen d'accord naa ci dialogue lii moo taxoon may wax bi may wax ni d'accord naa ci dialogue lii moo taxoon may wax ndax lu tax ma taxoon may wax mooy wax dëgg yàlla. waaw bismillah ñëwul. Mhm. ñu ngi lay déglu honorable. s'il vous plaît vraiment ça là j'aime c'est la deuxième fois quand je parie vous me vous mettez là kii di ko du du déconcentré ni ngeen nekk. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal mhm. ma je le fil. ok ñëwal ñëwal waaw yaa ngi woon ci. Euh, Ousmane Sonko condamnation bi ñu bi ñu ko bi ko condamné waaw. Euh, ok mhm. kër gi du nii. àdduna du nii. Mhm. nañu bokk waxante. dama gisoon ni euh, sànq xëy na dañuy confirmer la mhm. condamnation de deux mois avec sursis okay. plus encore sinon ñu def ko sax moins mhm. parce que pour li ñu jëm moo taxoon ndax waxtaane dëkk bi jar na ko mhm. waxtaane jàmm jar na ko euh, lu mu metti metti metti nag ak lu mu neex neex neex maa comme je dis de je suis la fille de Abdoulaye Wade parce okay. que fille spirituelle dafa am mais dama jàpp ni jëmmi Ousmane Sonko ci dëkk bi tam bëgg jàmm tollu na noonu ci hmm. nit ki nga xamante ni moo am ak Mame Mbaye hmm. jàmm su doon Ousmane Sonko la ak président Macky Sall hmm. ñu ne verdict bi de tolloo na ak jëmm nit ki nga xamante ni moom nga seqal mais nag Mame kilifa la ci dëkk bi nag parce que nit bu nekk kilifa sa kilifa bopp nga mais itam lii man pour man jaru ko woon bett na ma d'ailleurs sax boo gisee xool nga ne xaw naa nerveuse tuuti absolument parce que waaw xaw naa nerveuse tuuti parce que Euh, je m'attendais pas à ça. xaaral woon li gën ci jugement bi quoi xaaral woon verdict bi foofu. Mm-hmm. ok parce que man jàmm daf maa a lu ma mën a. Mm-hmm. te lii nii. billaahi ñu xam sa relation ak Ousmane Sonko aussi waaw mën naa bañ a jur jàmm. Mm-hmm. mais yàlla na ko jur. parce que tamit njariñ loo fekke njariñ loo fekkee gis nga taalum réew. maanaam sa sa papa daf daan wax naan boo booyalee sa ànd ba mu boy. yàlla na nga fekkee njaar la. ñun ñëpp ci réew mi lañ dëkk mhm. amu ci kenn koo xamante ni soo xëyee suba teel du penku rek ngay jublu mhm. yaakaar yàlla même catholique yi dañuy xëy jublu penku yaakaar Jésus ma mhm. je pense que kenn warta mën a xañ kenn pour mu bokk ci élection yi ok su fekkente ne nag rawatina yow mii xañee ni doo bokk ci élection yi waroo bokk parce que euh, ma collègue Adji Mbergane Kanouté la présidente wax na léegi nii deuxième quinquennat c'est des mots préfabriqués xam nga les les nu koy waxee ci monopole quand tu fabriques les lettres là. Mm -hmm. le le quinquennat là. Mm -hmm. c'est préfabriqué Adji Mbergane il n'existe pas de quinquennat dans la chose xam nga lu tax. Mhm. en dañu dem 2019 ci constitution bu yàgg. ci mhm. ci bu yàgg. ngeen indi référendum président Macky Sall taxaw ne man ci sama bopp. Mhm. mandat bi may def bu juróomi at. su weesoo. juróom-ñaari at mhm. su weesoo mandat bii ngeen may fal mhm. moo koy def deuxième mandat mhm. dootuma ci bokk waxi président Macky Sall Macky Kumba Timbo nga xam ni nag nit ñi ñëpp jàpp nañ ni nitu wax katu kàddu la duma wax ni amoo bilan parce que ñeme ma ko wax sunu xaalis ngeen yor di ñun ñu signé ay projet ba Karim Wade génn wax ak chinois yi wax ak arab yi wax ak ñëpp signé bàyyi fi ngeen signé di liggéey dolli ci da ngeen di am bilan par force terre bii ngay wax ak ay berteeg yooyu yëpp ñoo ko moom suñu xaalis la mhm. mais nag dafa aye rek defar ko mhm. mille 2024 dafa war a fegal ci yoon nag laa wax ci mhm. code bi nga xamante ne yéen yéen a ko laaj lu sénégalais yi dem référendum ñu votel leen ko kon 2024 mooy feewu mandat wu Macky Sall te Macky Sall moo taxaw fii sénégalais yi di ko xool mu di leen xool mu ni amatuma lu may njuuj njaaj amatuma lu may njuuj ndaaj nag parce que bokkatuma ci élection yi mhm. xam naa nit ñi dañ koy fàtte ma rappeler aussi li euh, euh, Pape Assane wax léegi il faut de bons conseils Macky Sall Macky Sall il lui faut de très bons conseils mhm. on ne peut pas appeler en un dialogue politique en ce moment mhm. condamner Ousmane Sonko le même jour bu nit ñi taxaw naan nañ leen dialoguer ak bu ñu dialogue absolument ça pose problème mais dama jàpp ni comme li ma wax sànq ne interrompre Pape euh, Pape euh, Assane ne la les procès en appel sont là. Mhm. jàpp naa ni mën nañ koo rectifier ci procès en appel. en appel waaye nag. Mhm. na marathon comme ni bii marathon yee. Mhm. parce que bii moom first track la. ok bii moom. first track la appelu Mame Mbaye en deux mois nga na ci nit mu woote appel nga procureur woote appel fixel boppam audience. dans la semaine qui suit. Mm -hmm. loolu moom na appelu Ousmane Sonko bu ko dugalee na first track comme ça ñu xam ne tous les hommes sont égaux devant la loi mhm. xam nga dama am benn dicton italien bu may wax mhm. léegi parce que mu leer dañoo jël ginnaaw juge bi mhm. soo demee tribunalu Italie ci ginnaaw juge bi dañ faa bind tous les hommes sont égaux devant la loi benn italien di ma xool ba yàgg mu ne ma però è scritto dietro il mu ne daf ko bind dañ koo bind waaye nag dañ koo bind ci ginnaaw juge bi juge bi di ko liir kooku dañ ko waroon bind ci kanamu juge bi siamo tutti ak wàlli davanti la legge dañ ko waroon bind ci devant juge bi mhm. juge bi di ko liir nañu fexe ba nga xamante ne kii tamit bu defee appel nañ ko defee fast track comme ñu ko defee pour ku ci nekk am ci gis ci sa bopp mhm. ñu xam ne moom mii bu leen tëkkalee Abdoulaye Wade si troisième candidature am mhm. ak lii ngeen di tuddee quinquennat Ablaye Wade li mu doon def man biroon na ma ni comme nii ko euh, Abdoul Amadou Ba expliqué mhm. ma xame ko ko nga xame ko ko honorable Assane xame ko ko yow nga xame ko ko amoon na ci droit parce que la nga xamante ne moo ko ko ci mayoon ay tax la ak ay règle président Macky Sall lii muy def loi moo ko ko xañ parce que moom moo organiser lu boppam un référendum mhm. bu koy wax bu mu jël ne mandat bi mhm. day dugg ci deux mandats yi may wax modification de l'article 27 modification de l'article 27 mhm. moom moo ne mandat bii may def day dugg ci biir deux mandats yi xanaa nag nga dem dans ce cas là on on parle plus de quinquennat justement maintenant te benn septennat la am. Mhm. ak benn quinquennat. Mhm. muy douze ans parce que dafa ne woon cinq ans laay def dama koy wàññi. Mhm. ñu ne ko mënoo koo wàññi. loola d'accord naa ci parce que. loola mooy loi ndax boobu ma koy def quinquennat moo fi nekkoon. sept moo fi nekkoon. donc amul woon benn droit ci laal li constitution bi wax mooy septennat. donc bi mu ñëwaatee ñu fal ko en 2019. mu ñëw am benn quinquennat quinquennat boobu quinquennat boobu moo fekk si septennat bi muy 12 ans. Hmm. su président Macky Sall jeexalee ci li lu loi wax ak règlement mooy 2024 président Macky Sall waru bokk ci élection yi. Hmm. dafa war a organiser des élections libres et hmm. transparentes. ñëpp bokk ci te moom du ci. bu forcé nag. eh bu forcé nag. waaw li mën a lan la man a jur ci réew mi parce que. F24 vraiment man jàpp naa ni. ñëpp gi ñun ñëpp nag. man damay wax. ci sama xalaat. ok Assane day wax ci analyste. absolument Amadou day wax di défendre son parti. di mhm. défendre président Ousmane son ok Adji Mbergane aussi a le droit de dire. Mhm. man président Macky Sall laa àndal gis naa li muy liggéey sama xel. ak sama poste ak sama affaire ci président Macky Sall la nekk. Mhm. am naa droit défendre président Macky Sall bokk mais kenn déggagul président Macky Sall mu ne danaa bokk. danaa bokk. Mhm. moom la Sénégal yi di déglu. loolu nag mhm. ñun président Macky Sall lañ ciy déglu. Mhm. parce que président Macky Sall nag moo taxawoon ne man mandaa bii ñu may fale. ñëpp a ngi koy dégg ñu koy jaarale ci rajo yi. ok ci lay bokk. te man jàpp naa ni mago Amadou moom maki Amadou moom xëy na xel mën na cee dem. waaye Amadou Ba sa doom bi. xëy na peut-être ñu ci eggee. vraiment mën na ni euh, ma candidature. ou sama sama sama yëf saret laa. j'accompagne les Sénégalais. Okay. parce que honorable jërëjëf euh, Pa Assane euh, ci condamnation bi ak stabilité bi ah naka la ñuy def ba Sénégal mën a am dal honorable bi nga koy wax léegi ah euh, bëri na question yoo xamante ne c'est des questions ki qui dérangent mais yu mën a taal Sénégal troisième candidature bi ah lu mën lu lu ko mais aussi